Aidara bismillah coowal Khalifa Sall ba day ah. ma ne la bettul kenn tribune yéene kaay ne Khalifa Sall day waaw mujj nañ koo tëj juróomi atu yàlla yoo xam ne day da koy tëdd allahu akbar la ilaha illallah professeur Abdoulaye Bathily ne ma ne la atew Khalifa Sall boobee waaw ma ne la politique la la politique la laa lay wax ni léegi uh-huh. professeur Abdoulaye Bathily ne waaw parce que nag gis nga ba mu tàmbalee ak léegi ni la day ah. dara rëccu ma ca laa la wax moo tax ma ne leen lii daal la politique la professeur Abdoulaye Bathily tribune yéen kaay yemu ca ndaxte nee na gis nga ay yoon yoon waaw ma nekkee ca gouvernement wu Abdou Diouf ba day ca doon wax ne côté bi xam ne côté nga ko Abdoulaye Wade ni la wàllum politique la waaye ñun waa LD tamit ba ñu nekkee ak Abdoulaye Wade day ba mu tàmbalee di def kon ay tojange daal di kon jam kon ca biir la ilaha illallah maa la ko wax professeur Abdoulaye Bathily ne gis nga suñu réew mi waaw lii raam te nag wala jam da fa amee kër notre pays est dans une situation très dangereuse en ne waaw Abdoulaye Bathily ne parce que wàllum bi mais ñëpp a xam ñi xam ne mës nañ fee nekk maire de yëpp dama ne la nangu nañu ko ils l'ont avoué ca semaine bu njëkk ba mi doog a xew ca laa wax kon président Macky Sall ma ne ko gis nga coowal Khalifa Sall bii du def dara lu dul yàq deru suñu démocratie bi kese la justice des brebis galeuses ëppalaw terminé yéene kaa ne tey bi nga xam ne salte lool ci suñu wàllum démocratie bi lee wàllum ma am ndey ku ma amul ndey la fi gis la nguuru Macky Sall gi di def wàllum injustice rek gasey Malick Gakou ne xooleel ma Macky Sall ak amuñu dara lu def lu jël suñu justice bi di ruux rek instrumentaliser ko réew mi quotidien ne bi nga xam kon tëj nañ ko Khalifa Sall juróomi atu yàlla ci kaso bi day waaw professeur Abdoulaye Bathily ah, daal dinay lijjanti nag ay mbiram ak Macky ba mu neex maa la ko wax waa URD day nem si yàlla jiboka ñoom jeegaan seen waaw nee nañu dañoo war kon Tanor Dieng mi lee ak Khalifa Sall bay wéy na mbuus waa URD yemuñ ca parce que parti ñoom Valir Samb ba day la ñu wax mooy Khalifa Sall mi lé nañ ko gracier daal di koy baal waa Benno Bokk Yaakaar day nee nañu adaba daal yoon dong la ñu fa wax Le Quotidien yéene kaay ne gis nga wàllum justice bi ak wàllum parrainage ci élection yi Sall mi la dee professeur yamu ca parce du indi dara ci biir réew mi lu dul askan wu fipp rek parce que yow ay millions ngi millions ngi signature mais loolee nan lañ koy gérer moo jaaxal ñëpp Walf Fadjri ne gis nga wàllum candidature socialiste wàllum parrainage atte bi nga xam kon tëj nañ ko Sall day ñi nga ànd ak Sall di ay de waaw waaw Abdoulaye ko ne responsable yi nekk Bokk yi kon d'avance du dañ professeur dama ne ñëpp xam kees gi ne ko may may bu waaw suñu réew mi bëggee dégg dëgg mais continuer ci neex ne ma Dias waaw procureur day na ko da te ko ne kon tey jëlee marti tali la ilaha illallah ma ne la Barthélémy Dias waaw keroog ba nga xamante ne kon dogal ba wàcc nañu te kon Khalifa Sall juróomi atu yàlla ci kaso bi waaw yekk na lu mel ni xamee président ak wàllum si si si ak magistrat yi waaw waaw te xam nga ne Barthélémy Dias day émission nag la doon defi kon ca Dakar atu gee ca Serigne Diagne gendarme yi dal ci kawam box bi li ne moo taxit waa ni gendarme yi kon doxalee ak waa Dakar atu ci kanamu yàlla tribune yéene kaay ne ma ma yeggali s'il ci yéene kaay dee média gi ne ne laa la wax par tous les moyens doomu Sampol Laas nga yemu ca Sall gi daal benn bëgg-bëgg dong ñu am nu ñu def kon ba Khalifa Sall mi négocier man baat li mu jaas nag li may wax Macky Sall bariwul négocier wuñu tey te négocier wuñu tamit ëllëg ca la ay élément wu colonel Issa Diack bu section recherche gendarmerie kon daal di koy teg loxo terminé ne kay ne tey nag ma wax leen lu tax Macky Sall ak waa këram gi mënuñoo yey kenn mënuñoo wax ba convaincre kenn ci coowal Khalifa Sall bi mandat rek deuxième mandat te lu mën nag dana ko def maa la ko wax jëfandikoo ngànnaay yi dagan ak yu daganul arme conventionnelle ak non conventionnelle pour am deuxième mandat rek soo leen gisee coowal Khalifa Sall ñëpp daal di koy naqaralu waaw nekkul ne parce que Khalifa Sall deful de déet déet waaye kumba am ndey kumba amul ndey bi am ci wàllum justice bi la une justice sélective yéen kaa gi ne lan moo tax ba Khalifa Sall kese ñu ànd ko dugal ko ci kaso bi di ko topp te ca jamono joojee président Macky Sall waaw mi ngi jël ay dossier yu nitam teg ca concam boobee moo ca teg conc ba te ay nitu Macky Sall day dañ leen a kon ay baaraamu tuuma laa lay wax nii corps de contrôle yi sàcc alalu askan wi yorin ko bon di malversation Macky Sall naan plan Sénégal émergent Walfadjri ne ca semaine nationale de la jeunesse ba day la waaw waaye picc nekkuloon ca xaw ma ndax wàllum organisation la wala politicien yi ci boppam la nit ñi weddi wala problème mu la waa Pikine amoon way tombee waral ay gaaf mooy bisu làmb ja Balla Gaye Gris Bordeaux en laaj ya daal na nga tege te kenn tontoogu ca loo ca mën a jàpp daal mooy Macky Sall ba mu toogee ca 2012 ak léegi ni lée waaw fiasco populaire bi Macky Sall mu su koo dund déedéet rawatina ca Pikine googee woote dama ne la Pikine nekkul a a doo suturaal takk der ya dugal ko ca jamono ji Macky Sall yi discours waaw mën na leen tribune ya quatre nekkuñ fa kenn nekku fa laa la wax picc nit doy na waar la doy waar kay dem naa ca lamb ja tribune soox ne Balla Gaye 2 ne man day roi des arènes bi rek laa tëgaat sama bët bala ne waaw sama dellu soit bi dama ko marqué yóbbu Gris Bordeaux ñaari yoon kon Ardo Abbas Ndoye président écrit que Balla Gaye 2 gañewul uh-huh. Abbas Ndoye ne que arbitre yi day dañoo ju waa face ne dama ne Balla Gaye 2 génn na saaku te jëlul avertissement loolee luy ndeyam Gris Bordeaux ne man daal consigne laa bëree liñ ma sant laa bëree point Balla Gaye 2 jëla ko tijjee yéene ne samay noon yi doon wax ne man mënuma xeex laa doon tontu noo ne te combat bii nag boo leen bëggee dégg dëgg man Balla mënuma ko woon a ñàkk <laughs> <laughs> alaaji ñaari mbër yi doon bëre fii stade amitié Léopold Sédar Senghor Gris Bordeaux Balla Gaye 2 gàcce ngalaama waaye mbër ma doon bëre ci stade Alassane Djigo bee xaaral ma yemale fa wax ja article 80 état du caaxaan boo paree ma ne la alaaji tëjal